Ah. haalaan bikum xay xeex xay roccante paaka ngàddante saagawante fitna ju yaatu lool nii la campagne électorale bi dooree ci réewum Sénégal wal fajiri yéen a kaay moo ñu ko xamal bërki de moo njaay lañ dugg ci campagne bi te fi mu toll ni kurpañ yaa ngay naaw ba ca gën a fës nag mooy ba amoon ca Medina géejawaay ba imaam yaag borom xam-xam ya ñoo ca doon dox tànki jàmm vox populi ne fitna ju njëkk ci campagne bi Parcelles Assainies la amee ndakaaru géejawaay ak sama ca Medina ak Géejawaay Tribune yéen a kaay jox kàddu Bamba Fall nee na fitna ji yëpp gaa yi di def sama kaw mooy firndeel na man xaw naa yoonu am ndam gañaleen critique yéen a kaay ne ku yóboo tiit ndax fitna ji tàmbali ci campagne bi nit ñu ponkal ñu ngand ñu rëy ñooñu ñu ñu wax ay nér bi wàcc nañ ci campagne bi a yaaw seetal corteesu Diouf Sarr ba fañ koo tojate ba mokk ru mbax sànni ay xeer am na ñu ca am ay gaañu-gaañu ba ñu yóbbu leen hôpital ak ñoo xam ne fañ leen caa a kaay ne Benno Bokk Yaakaar ca seen Moussa Sy fa mer Zator Mbaye moom fa gedd mitin ba Mimi Touré fañ koo rawale waaye konoon ñu gaañ ko Medina tamit jàppante bu métti moo fa xamoon diggante farandooru Bamba Fall ya ak Cheikh Ba géejawaay moom la fa xam du jàmm farandooru Aliou Sall ya hay paaka la ñu rocci song farandooru Ahmed Aydara ya fañ leen a dàqee fitna ju métti moo amoon géejawaay réew mi yéene kaay na ko bul fàttee Cheikh Ba ay militant fañ leen a agressé ca Medina exclusif yéene kaay ne benn ko dooree fa ba daanu ñëw seetal Diouf Sarr Moussa Sy fa ñoo lajji ka fa nekkoon maire ca seen mitin ba fa nangu micro ba aaye Amadou Ba noo ko doo fi waxee ñu ne déetawaay Mimi Touré moom fañ ko sotti ndox mu salte mu tilim ca yaramam wa am na sax ay nit ñu fa am ay gaañu-gaañu enquête yéen a kaay ne Benno Bokk Yaakaar pëccëxoo gu mat sëkk moo am ca seen biir ñoom i neen ñoo reyante fañ doon buuxante fañ doon xeex ca Parcelles Assainies moo tax sax Mimi Touré ak Zator mbay ñoom fa ñoo mujj jóg gedd mitingu Diouf Sarr ba dem seen yoon ndax fitna ja turbine yéen a kaay ne campagne bi nag du Ndakaaru rek la tàmbale Sénégal yëpp tàmbale àddina lañ ca nemmeeku nag faa leen koy wax yaw seetal sànni wante xeer ay bomb ñu lajj ba xalangu ak ñuy jéem a leeral bokk na ca war di ni nee na ay adversaire am bàyyi leen li ngeen di naxee askan wi di leen dig xam ne buñ leen falee ngeen nekk maire du tax ngeen mën koo def dee leen wax dëgg askan wi Diouf Sarr na fukki at ak ñaar a ngi nii ñu jiite woon maire bu Ndakaaru mënuñoo def bilan Pape Diop bokk gis-gis na ñun de moom xam nañu lu leer na fa ñuy gañee ndax na ma bàyyi woon Ndakaaru ba léegi moo fi nekkaat daraa fi amul coppite Moustapha Diop ca diwaanu Louga fa attaqué xam ne ñoo bokk parti APR xam nga lu ko wax nee na Mamour Diallo Ousmane Sonko li mu ko tuumaloon dëgg la 94 milliards yi Mamour Diallo fa cee taq ripp ci libération Moustapha Diop yokku ca ne téeméeri dossier ak juróom fukk 150 dossier yoo xam ne Mamour Diallo loxom na ca kon mu ay mbiram dara ci leerul labaj xaalis rek kon bu ko kenn fal Louga ke bëgg ñu fal ko ca diwaanu Ziguinchor nag Ousmane Sonko yéen a kaay bi nee na Ousmane Sonko wàccee na Ziguinchor yée tét mbooloo mu bëri mam fa def ci ndorteelu campagne bii mitingam ba mbedd ya Ousmane Sonko mu romb askan wa dar ko waaye nag fa faa yett leeral na xaalisu Casamance bi lam ca namm ak lam ca jublu yéen kaay bi nag ca diwaanu Kaolack Serigne Boub ak diwaanu Tiwaawoon jaañ si mbeng wane nañ fa seen doole léeg si ko yéen kaay ne Mame Mbaye Niang moom fa feesal stade ba pare daal di dékku ñuy jogante ak moom na leen ko mën ñëwal def ba tey yéen kaay bi ne Ousmane Sonko wax naa ay adversaire am ne bu fekkee ay góor ngeen faa bëgg ngeen ñëw toog ñu jàkkaarloo wax ak askanu Ziguinchor ci suñ programme yi ki amagut programme nag ba léegi mooy Barthélemy Dias Dakar surtout ay yéen kaay yi moom wane photo Fadel Baro candidat ca mairie bu kawlax bu coalition jàmmi gox yi kaay bi ne ñoom ku jege nag ña ngay ñaawlu caxat-caxatee nga xam ca suufu Kaolack leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Abdoulaye Balde nee na fay xam ndam fay mbuqi gaaña ca Ziguinchor libération moo ñu ko xamal Ousmane Sonko mel ni ko koy tontu na ko sa samay adversaire seen xam-xam ci wàllu science fa gàtt maanaam xamu leen dara direct news na ko Sonko kay fa toj kalaat rajaxe Ziguinchor mbooloo moom génne fa jéggi dayo ba pare na Balde sa gaay def leen seen bilan exclusif yéene kaay na Soham Wardini tamit toj na Ndakaaru mbooloo mu bëri la na ko Soham Wardini kay fa doon def démonstration de force le soleil wa Faye wàllu askan wi dékku na maire ba fa ne woon de pour jëlee ko fa Kaolack Serigne Mboup ma ngay ñàkkanteg benn bokk yaakaar diwaanu Matam Farba Ngom wa na na moo ko moom diwaanu Thiès xeex ba tàmbali na la laneen lu tàmbali mooy coupe d'Afrique ba niki démbu Cameroun ma dalal gaaña fa mbuqi Burkina Faso ñaari bal ci benn tey nag ci altine bu benn waxtu ci ba bëccëg jotee ci la senegal di bal ak Zimbabwe léeg si ko yéene kaay na Aliou Cissé fay dem xare waaye nag équipe bi ñu bëri duñ bokk de yow seetal Ismaïla Sarr moom fi mu toll ni leer na ne dootul bokkati ci coupe bi ndax sax dem na Koulibaly ak Mendy fa ñoo xamee corona Aliou Cissé ñun ñooy favori waaye fa war a gañ ak Coupe d'Afrique bi Le Soleil yéen a kaay ne ngeen di dugg ci yëf de record yéen a kaay ne juróomi footballkat ci fukk benn ya daan départ duñ bokk stade yéen a kaay mel ni ku leen ngir yàlla faxaleen ba gañe réew mi yéen a na ko juróom benn titulaire duñ bokk te amaat na ñetti gaynde yu amaat corona bés bi yéen a kaay jongante bii natt jigéen guddi rek dawal ba ci ab garage mécanicien rek mu génne paaka ba na la faalay rey wala boo nga tëdd ma ànd ak yow fa koo yàgga def nag moom Serigne Faye libération ne waaye suñ policiers yi xarañ gi ñu xarañ faxe nañ ba teg ko loxo ginnaaw bu mu ko defee benn xale bu jigéen xuxal ko ak paaka ba pare wéeloo ko tëdd ak moom waa ma ne xab taximaan li ko war diggante moom ab kiliyaanam fa koy yóbbu fa mu bëgg dem mu fay ko ku nekk dem sa yoon waaye taximaan buy jël ay kiliyaanam rek di kala ŋaatoo ko génney paaka naan yaa ngi tëdd ak ñoom waa léegi boo demee tëdd ca kaso ga ba accéléré oto mu tëla